صدري ويسر لي أمري وعن عقدة لساني وقولي واجعل كلامي راشدا مرشدا وفكرتي نورا وحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كسبوا فأخذناهم بما كانوا بآياتنا يكذبون mbokk yi fi teew ñu ngi leen mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ubi sa tur ak sa sant di jiital ci nuyoo bi sëriñ Abdou Samad Mbacké ak mboolem kilifa yi àndal jataay bi di wax rek ne kàddu yi mën naa bañ a gudd ndax li ñu sant rek mooy ñu ubbi dalal waa dëkk bi di ñaanal sëriñ Basiru Anta Ñaŋ mi nga xam ne moo nekk xalifa borom Daarul yalla yagal ko fi lool te dëgëral ko di ñaanal serigne mohammed muntaha Mbacké mi nga xam moy khalifa general de di murit suñ borom yagal ko fi lool te dëgëral ko xana rek ñi ngi leen dalal yeen ñepp ci jamm dañu baña lim di fàtte waye kon danañ tuddu seeni tour yeen ñepp surtout kilifa yi nga xam tew waye waaye ñi nga xamne invité won nañ leen ci jotaay bi ñom ñepp tew nañ bañ amé ci sax lu kawé suñ ñu ngi leen di dalal di sant bu baax ci teew gi ndax xam nañu ne ni jamono ji xate nañu xew ndax ndax ni xew-xew yu bare kenn ku ci nekk am na loo bàyyi lu baree bari dagg ku ñëw waaye kuréel gi nag ba sosee ba léegi ñi nga xam ne ñoo ci nekk noonu lañ ci nekke li ko taxoon a sos rek mooy bëgg lu baax ak sàkku ngërëmal sëriñ bi jërut may wax ci guddal ci la ko tax a sos ak sabu ba sos la ndax ni jataay bi demee ak waxtu wi ni mu waaye daal li nga xam ne moom la ñu ma sant mooy sant waa dëkk bi bu baax ak leeral seen taxawaay loolu moom maa ngi leen koy seereel yéen ñi fi nekk ñëpp ndax li nga xam ne ba kuréel bi tàmbalee ba léegi nga xam ne sos avril 2020 li nga xam ne moo ci dugg ci xaalis li dugg te ju duggee ci biir réew bi waa dëkk bi am nañ ci taxawaay bu rëy rëy rëy rëy ndax 6 millions et quelque te defe naa 3 millions yëpp Darou Mouhty ñoo ko dugal biir daaru musi googu itam jigéen ñi taxaw nañ ci taxawaay boo xam ne mënuñu leen a ñàkk bañ a tudd buñ ko mënoon sax kenn ku nekk dañ lay tudd kenn par kenn ndax biñ ko sosee gis nañ ne jigéen ñi kenn ku ci nekk yaay woote yaay ñëwal sa bopp yaay laaj ko fu lenn lu ci nekk bari na ci sax ñoo xam ne lañ am lu néew néew da nga xam ne ñu yéene liggéeyal sëriñ bi lañ ci am waaye xëy na du seenu man waaye da ngay gis ne saa su nekk boo wootee dañuy teew ba pare boole ci di yëkkat sa alal di la jox di la ba pare di ci daj coono yu baree bare bare ndax léeg-léeg ñu jamono ji xate ak jokkoo bi ni mel nga xam ne kuréel bi fi mu ne daanaka amagul compte banque amagul compte Orange Money faw bala ngaa joxe la nga war a wees léeg-léeg nga daj ci coono yu baree bari waaye ba fi mu ne nii gis nañ ne jigéen ñi du ñu découragé benn yoon ñu ngi ci bu baax a baax ñu ngi liggéeyal borom daaru ñun itam yéene jooju lañ ci am yéene ji ci am rek. mooy liggéeyal borom daaru sàkku ci ngërëmal sëriñ Touba te jàpp nañu ngërëmal sëriñ Touba ku ko am am ngërëmal yàlla ba tax na ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di ko seereel ki nga xam ne moo fi nekkal borom daaru muy sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ ñu koy seereel ne waa dëkk bi daal kuréel bi nga xam ne mooy takku defar daaru taxaw nañ ci taxawaay boo xam ne kaawe nañ jortu ci ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir tamat ci seede surtout jigéen ñi maanaam ba tey dama koy feddliwaat di ko baamuwaat rek maanaam ñi ngi sant bu baax a baax seen taxawaay ci saa su nekk bu ñu waree liggéey saa su nekk bu ñu waree génne saa su nekk bu soxlaa seen taxawaay ñi ngi leen ci sant bu baax xam naa comme que waxtu wi dafa jege te dañoo guddee tàmbali maa yamandi foofu rek li ci des mooy lépp lu nga xam ne war nañ koo leeral ci biir kuréel gi danañ koo leeral insha allah taala wa sallallahu taala wa sallam ala taslima ma sha